mais lu xew. Baye soo gisee ma wala fii tey du lenn confiance bi ma am ci yow kese la te lii ma lay bëgg a wax dama bëgg mu yem suñu biir nga sàngu ma sutura tamit baay man dama ëmb te sama copain yi ma am yëpp ku ma ci wax yaa ma ëmbal rek nga rejeté ma te tey jii fii xaw ma fi kenn yow laa fi xam. bëggoon naa nag noo ma si mën a jàppalee rek nga jàppale ma si te yàlla rek tax ndax yow xam nga li nekk suñu biir kër man maa fi taax te samay rakk yu jigéen rek a fi nekk te sama yaay bés bu yëgee ne ëmb naa te waxuma ko ne am naa papa doom bu boobaa ci ci mbedd mi laay fanaan. soxna si li nga wax garaaw de xam nga ne man instant bi ñu toll nii su ma nee mën naa nekk sa papa doom damay ma neex xalaat mënuma loolu. non yow li nga xalaat du loolu de xam nga yow ñoo dëkk benn koñ yow mënoo nekk sama papa doom man kañ lenn laa bëgg ci sa xarit yi koo mu ci mën a lijjantee rek pour mu nangu sama grossesse bi rek man d'accord naa ak noo ko mën a lijjantee. si. mën na nekk. dina mën a nekk non ça dépend. ah, ah. ci lan. ah da am nu ñu def comme nan. Ah, man yow xam nga ne man xëyuma gontum damay bëgg di solo damay génn damay solo xaalis waaw mais noonu loo ma lijjanti rek ma lijjanti problème bi loolu dara. comme ñaata. benn six cent mille rek. Eh, yow bàyyi yëroo mooma en de deux mois man li ma mënoon dox mënatuma kaa dox. avant loolu tamit dangay ñëw sama gàlle deux rendez-vous pour man. plus 600. 000. mille. waaw léegi xam nga nu ñu def man d' mais ma defal la ko tranches parce que bu dee yàlla dëgg rek la bëgg instant bi mënatuma dugg bee génn bi parce que tout le temps maa ngi meex maa ngi feebar. may bañ après ay problème am ci de. non non kenn du ci eh, yëg dara sax problème du ci am. non problème bi non non du ci yow ma rek ba li ma bëgg mu heure bu ma la woowee di mën a génn. amul benn problème. amul problème may déglu feebu ngoon man dinaa jéem a xool yow su ma la wooyee rek da ñëw. d'accord benn problème. boo ñëw nga indaale benn transport. amul problème. kon na mel ni sotti na. Ah. waaw. teg naa lépp sa loxo. non non yow mu agge legui damay am lu ma moy lol dina la wo ok bu la dat Baye fal ah waaye sa waay tay lo ci lo ne. kontaan. ha kontaan continue kon dal bagage yi du kese. dama dal ci xalé bo xamanteni ni. mol gi mu mol temba ñu ngi melni kuy dogu ci Europe. ah bàyyi nag yow sa tan ñaare do tan ta pourum pir nga may tanal man bàyyi yow est ce xam nga réellement li ma bëgg man. xolal bu dé té ma nga ci waaw ap ndjol la. té ndjol waaw amna na kanam am na gannaaw. waaw ba am na ah ya ngi léegi nga jege sama bëgg-bëgg né amul lu ko xol ko mu dara dang ta xol ko ko baax. salam alaykum jaag maaleykum salam ja. bien fait la. bët ya. ce est xolal xam nga nickel. bëgguma ko mel ni ko mbëkk P10 damaa bëgg koo xamante ni foo ko xoolee sam xel dem ci dee. Fall dee googu laa lay wax maanaam boo deful naa da lay rey ah ndax xoolal ku ñu préparé ba mu pare la na ko puuf mu wàcc. ah ah nan ko xaar da nangu gi mu nangu. yoroo xam nga la moo gën a garaaw. Hmm. ku rasta lay bañ a gis. yoroo photo. daa am feebar la te xoolal <laughs> kamu tak xam nga xamal tax mënu ma koo jël man la Ada illallah Kamu jaga copine am jël ah da sama parfois sama xel bi nekk ci mais xam nga yor nga photo ñu ngi ne moom la bëgg ah eh wow, wow, wow, waaw oh kii bu la xoolee dëggantaan boo def nag da ngay ragal dara waaye daa ay ans ah ah <laughs> tànn naa wala tànn ma. tànn nga tànn nga oh, léegi mu oh, ah, ma photo bi waaye jëru ko sax. waaw ah, moom mais attaaye xanaa